waayu tee janvier bi dinañu dinañu waaw dinañu communiquer ci kiñ tuddee combat bi ndax Père Mbow day parrain boo xamante ne parrain bu mat parrain la tur leen jàkkaarloo caméra yi muy nit ku baax boo xamante naa la ko wax fii ak ci kanam presse dañu mën nañ ko écho ba ci kanam ndax nit ki waaye mbokk yi Mor Yekini ak Malem Niani ñuy ñaari ndaanaan Mor nuyu naa la. bay naa la Mor Mbaye. ba bàyyi la nga nuyoog waa àddina. waaw maa ngi nuyu képp ku teew. nuyu son frère prince programme Gopay bi nga xam ñoo bokk ci même koñ di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñëpp. nuyu naa la ma leen ñaan. fay naa la fay naa la nuyu naa presse nuyu gars yi fi toog nuyu caméra yëpp nuyu kii boo xam ne moom la ñu. nuyu caméra yi rek maa leen di nuyu bàyyi ma kenn sama doomu ndey sama doomu nijaay Babacar Babacar Faye maa ngi lay nuyu waaw di la sant xam nga kii kii waaju ma koo xam sax eh. billaay waaju ma ko xam ban erreur kii ba lu tax sama gëstu laa la xam nga waaye yow moom man defaral ko mu naan soo ko defaralee chef de l'état chef de l'état depuis ci laa ko defaral te dama koy defaral Mourou Mbaye kii bu taxawee ne woon dama daal di seetlu daal di wax ko neex. daan naa la seetlu rek. tànk bi la jël ma dóor ko mu ram. biñ day wala dara. donc bu ko mu doon yow ñu jàpp la ngay taw di génn man jàpp la ba jàpp la. waaye tànk bi la tànk bi la jël ma dóor ko mu ram. doo doo doo appui la dóor dóor ko. xanaa bi du def erreur xamal lu ma loolu dafa jax booyam xamal lan la la bëgg janvier lañ wax ma yow. da ngay xool caméra yi. kii lu muy wax moom wuy ma soriwul. kii dafa dugg duggutu xaata bu bari wuy ma dana jëmbat koo xam ne koy arrangé wu ko dina xam ne fii nag wuy ma mosul fi ñaari ñeent. sama yoon laa ne sama yoon laa ne. dama la maa dee. seen la bokk. kii daa bokk sama yoon xam nga ni ñàkk combat ma la mu doon ma demee bu ma demee ko bu ma demee ba jël kii dama koy arrangé rek xam nga man daa amul ñu ma jàppale wala su ma amul ñu ma jàppale kii dafa dal dalab yoo xam nga xam nga lan nga sol sa kànga yu baaxul yi ngay def ma lay fekkee dama lay patax patax ba nga xam ne ba du ma sa borom. di nga xam ne xale ak moom du benn. ah moom mag la. kay. ñun ay ay morom lañ lu leer laa lay wax. lii de mënul tax ma bousee douze mètres. combat a day a wala day yéex. wuy ma combat bi. waaw bii rek laay déglu ma defalal ko balaa dem ñibbi. woo woo da ngay may nag ma woote ñu may jàppale. boo bëggee ma bàyyi may nag ma woote ñu may jàppale yëpp. maa ngi woote waa Dalifor bu baax. di woo suñu waa suñu garage. képp kuy dóor pano. trois cent quinze mbaam. onze vingt deux cinq maa lay wuyu ma di la woote wuyu ma ci garage bi jëlee bi ci labu bi. di ñaanal sama yaay ak sama papa ñu gudd fan ba lekk samay njëriñ bu baax a baax ak ñu ne léegi samay njëriñ di ñaanal Sénégal Sénégal dëgg jàpp di ñaanal sama waaj yi maag moom bu ñu bëree ba pare bu mu découragé ne ay fii day métti ay kilomètres yi mën bëgguma loolu. xam nga la ko ah? jour ba mu ñëw dégal ma dégal ma defal ko bagage mu ñibbi wante moo ñoo xamante ne damay jàppale bitim réew maa ngi leen di woote combat bi ñoom Bouba ñoom Ibouti ñoom Ndiogou Touré ñoom Mamadou Diouf. ñoom Pate Seck ñoom Seck ñoom Koli Thiaw bàyyuma leen Coupa Dougar lay ngembo tey tey tey Coupa Dougar lay fanaan su ma fanaanee Coupa Dougar wala ma yónnee si wuy ma des na trois jours ma door a dugg si te su ma ko fekkee fii dina xam ne man wuy ma ñaay laa nekk dëkku ma wuy ma du ma koy dafa xam nga li ñuy wax naan dafa dafa dafa kii quoi dafa temps temps moo xaw a jeex tuuti temps dafa xaw a jeex tuuti moo tax muy wax. parce que kii bu taxawee naan moo fekkee nangam ak nangam nangam moo jàpp jàpp wet rek. xam xam xamula xamula. yow ngay waaj a doxee ban danaa damay am doyoo. woote ngay màgget. mu mën a fekkee mu mën a. woote woote woote gaay. mën a fa doy rajo maa ngi woo Goubey. Ah. <laughs> sama frère. waaw waaw. lamb rek boolem. waaw dëgg la waaw lamb rek boolem ñoo bokk même koy. maa ngi koy woo bu baax jàpp ci bu baax a baax a baax a baax ndax euh, du bu dul bu dul alal sax. daf ñuy woo di ñu conseillé ci aduna dañu waaw di ñu conseillé ci lépp yaa di ñu jàppale di ñu xëcc di ñu tax ci boppam parce que loolu yomb ñu dëkk ay xale di leen xëcc di leen tax sa bopp pour bëgg seen yoon leer kon ñu koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg a àgg moo xam yàlla na ci am lu kawe njortam waaw di gërëm presse bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp ñu fi teew di gërëm ci bulaay waaw di ko nuyu di nuyu waa Mbour Mbour yi xam te ni balaa dëkk balaa cosaanoo di nuyu waa Parcelles nombre 26 di nuyu maanaam euh, ay see yëpp ay see koy gi di gërëm euh, waa Mbour ñëpp waaye gërëm tamit aussi waa ay see màgg daan di gërëm képp ku ma xamante nii rek mu ngi jàppale boo yéegi nii waaw pare tamit di nuyu waa Rock Énergie bi nga xam ne fa laa jógee léegi parcelle mbooloo laa nekk maa leen di gërëm di leen sant di nuyu Modou Lo baax a baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp di nuyu sponsor di gërëm ñëpp ñëw képp koo xam te tey jii taxaw nga fi sponsorisé lamb ji ñu ngi lay gërëm parce que loolu mooy loolu mooy avancé loolu lamb ñi ngi ñaan ñeneen ñi tamit ñëw ndax lamb loolu moo koy dundal parce que sans sponsor tey jii nii lamb mën na sooxee tuuti mais war nañ ma a ñëw jàppale lamb bu a di gërëm tamit waa Ranérou bu baax a baax di gërëm sécurité bi ak ñi ci teew ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di bëggee ñëpp. di gërëm tamit maam lees bu baax a baax a baax. maam lees maa koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla defal tawfeex defal ko wér defal ko wér defal ko jàmm bu baax a baax a baax a baax moom ñu ñëwaat ci ay activité bu baax maa ngi woo Malem Malem Niani soo see Malem Niani maa ngi leen di woo yéen yëpp di leen sant di leen gërëm du ma la du ma wax leen rafet na lu mu wax na maa ngi koy maa ngi kontaan ci moom maa ngi koy nuyu moo di yëg daanu door bu daanu